bonjour Cheikh Issa Laami Fa mbaa yéen ci jàmm te nag amul déglu leen jàmm la ndaxte li xew tey lenn la ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo mooy li xew euh, ca Louga ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye muy euh, femme bi doon am doom xam nga di doon accoucher far mujjee ñàkk bakkanam muy loo xamante ni lu metti la lu ñaaw la ba képp koo xam ne am na bi nga ko déggee metti lu ko waaw parce que ñaaw na trop daal parce que ni mu génnee àdduna ana ni mu génnee àdduna kenn rafetlu ko ba tax ba ñoo commencé maa ngi leen ñaan yéen ñëpp ñu partagé vidéo bi ngir lii bañ fee amati na ko ñëpp seetaan ba mu jeex te ñu partagé ko après pour mu bañ fee amati. ndaxte lu méttee métti la benn femme la bu tudd Assou bu doon matu ci hôpital Sakhir Mbaye bu Louga. far mujjee ñàkk bakkanam moom doom ji yëpp nag ñoo mujjee ñàkk seen bakkan. li jiitu loolu nag lenn la ndaxte Assou dafa waroon am doom ñu ne ko booy am doom mënoo amee doom ndax dañ la war a césarienne. Assou waxtoom jot mu ñu ne ko programme ñu la tey suba lañ la programmé. ba far Assou mujj ñàkk man may laaj li mooy léegi moom cas urgent dañ koy programmé wala. non lii dafa ñaaw quoi affaire bu ñaaw a ñaaw la képp koo xamante ni jullit nga wala sax nga am xol yow di dund di sentir bi nga ko déggee metti na la yow jigéen war a am doom war a mat ñu naan programe programme bi la tey suba la programme ba femme bi mujjee ñàkk bakkanam léegi kooku ñu yaakaar nag ñan ñoo ko rey dëgg la loxo yàlla mi ngi si quoi mais loxoy sage-femme bi génnuñ ci. parce que bu ñu ko teeloon a dimbali. amaana tey bi mën na accoucher ci jàmm doom bi ci jàmm quoi. li li dafa dafa dafa rafetul rawatina nag mu doon réewu Sénégal. de toute façon gars yi nañ déglu euh, yaayu astu mi nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam ñu dégluwaale aussi jëkkëram boo ko defee ñu mën ci mën a xam kaa bu baax ni fa demee ñu mën cee jàngat bu baax a baax façon métti na métti na maman bisimilah mën ngaa ñëw man damaa yore sama doom mu diggante jëkkëram yóbbu ko hôpital waxuñu ma ko sax ndax dima ko nëbb bañ ma teel koo yëg mu yóbbu nekk ak moom nekk ak moom nekk bàyyi deux heures ni ma ñëwal Euh, Ali yóbbu nañ ko asu lañ ko moom Ali asu ko wax mais Ali laa koy wax yóbbu nañ ko hôpital ma daal di jóg ñëw jël taxi daal di ñëw ma ñëwee ba buntu hôpital ma bëgg a dugg ñu ma doo dugg gardien bi ci boppam moom njëkk a wax doo dugg man ko dimbali ma man damaa yore malade sama doom dafa tollu diggante ñu woo ma hôpital njëkkëra moom moom rek moo nekk ak damay dem mun ma doo dugg taxawal fee maa ngi génn taxaw taxaw ba mu yàgg beneen ndaw ndaw bu nekkoon rek koy dégg daal man ndeysaan lii doom tollu diggante te laa bàyyi nga dugg man ka man wax naa ko ma bañ man mënu ma ci dara par yàlloo yàlla xale bu góor bi nekk hôpital ki nekk rajo ñu tudd Umar Kunta di ñëw génne woon ci biti ah, ma ne ko Umar sama doom dafa tool diggante ma nga dugg ngir ma dem ñaan intervention mun ko la taxawal ci kanam ma nee na nga ci kanam ma daal di taxaw ci biti ma génn dem ba taxaw ci naaj taxaw ba ca kanam taxaw bu yàgg yàgg ma daal gis numéro ji kër ma gis numéro ji daal di koy woo bi ma ko wooyee man ko Modou man damaa ñëw naa fi lu yàgg waaye ñu ngi ma téye mun ma ah man ko waaw mun ma xaaral ma mu ñëwee daal di ko daal di may mun ma kii kii sama goro la kii mooy yaay soxna si sama jabar moo nekk te kii mooy yaayam mu soog koy bàyyi mu dugg mun ma yaa ngi dugg de waaye booy génn na a wutee sa passe waaye mu wutee sa passe boo génnee dootoo duggaat ah, dugg ma wuti maternité bi ma ñëwee ba maternité njëkk ji Modou ci boppam daal di ma neen kenn dugg ci fenêtre bi ngay taxaw di koy xool fenêtre bi ngay taxaw di koy xool man ko ah mun ma waaw man ko doo dugg Madina man ko àll di ko métti ma daal taxaw ci fenêtre bi ko xool wax moom di wax moom du yàgg ndeysaan man mu kii tane mun ma waaw mu ndeysaan mu tëdd foofu lal dara bi mu tëddoon sax ci ko lal sax kenn lal ko mu dee dara lal ko maa yi tëdd koy xool di ko yër ci fenêtre di ko yër di ko yër di ko yër ba mu yàgg sama xol maytu ma laaj génn bu koy indiloon kenn lalul ko sax mat la bi kese la waaw tangu la tëdd moom dafa senk sax nangu la tëdd ci kaw mat la noonu la toogee xanaa bu affaire bi gën a métti ci lay soog a tëdd ci ko lal mu juga, di jógaat ma daal di wéerewaat ci buntu ba bi ma wéere ba ci may bëgg ñi ma man man ko sama doom mooy nekk mu fii mënoo fii man ko ah moom kese boobu ñu ma doo dugg ma waxoon ñu ma doo dugg ma daal di génnaat wéerewaat ñëw ci fenêtre ba maa ngi moom mënutumaa toog mënumaa taxaw ma jàkkaarloog moom di koy xool maa ngi moom maa ngi moom ma nekk nekk ñu nekk taxaw nekk taxaw tis baat jot ma dem julli di taxaw taxaw taxaw taxaw noonu taxaw taxaw boobu yàgg ndeysaan mu seen ko encore affaire bi gën a métti mu ngi woote dégg naa ko muy woote rek xam nga kan woo di woote di woote di woote di woote ba mu yàgg kenn wuyu ko ndeysaan mu daal di xale bu jigéen benn xale bu jigéen ndeysaan xale bu jigéen pël ku tam mu ngi moo jël dara bi daal di koy lal mu daal di te daal ba mu yàgg xanaa affaire bi gën a métti mu daal di jóg woote ba sonn kenn wuyu ko mu daal di jóg ma gis ko muy defoon ci lal yi lal di xam nga di ñuy jege yoon yi mu ciy jàppoon di jàppoon di jàppoon di jàppoon ba génn dem salle de d'accouchement bi ñun ko xanaa dañ ko lan la mu le man tamit après day métti xanaa mu daal di koy dédduwaate bi ko dédduwaatee daal di koy dolliwaat salle d'attente bii biir mooy ba par yàlla ñu dem nekk 5 heures danaka 4 heures 4 heures 4 heures demi moo jot ma daal di giitaat gis nañu di dugg ma daal di profité daal di boroxlu ci daal di dugg duggee maa ngi ko fekk ndeysaan mi ngi toog toog ci ko lal bi nii parce que lalu dara bi nekk dara bi ñu ko sànni foofu mu daay toog moom ma dikk man ko waaw luñ la wax mun ma nee nañ ma de ko de du man ko waaw mun ma wax man ko waa léegi loolu rek mooy seen xalaat mun ma wax mun ma loolu la ñu wax ah, de xanaa dañuy xaar ba ci kanam loolu lañu wax ndax ne man dañ maa war a opéré dañuy xaar ba ci kanam lii wax na ma ko man ko ah kon xëy na ci kanam par yàlla ñu toog ñu toog ba mu yàgg ndeysaan ñu toog ba mu yàgg encore ndeysaan affaire bi gën di métti gën di métti gën di métti mu mu daal di daal di ma waaye ma woo ni ma wool ma sage-femme wool ma ko wool ma ko ma woo ko madame Sène madame Sène lànk ba ñëw ba mu neex ko mu soogaa di ñëw madame Sène la tudd ndaw si monté ma gaar bi ay ay kiiwam ay eddam ñetti edda lañ ak benn gaar ak benn madame ñu nekk ma daal di koy woo mu daal di ñëw ba mu ñëwee mu ni ko madame Sène mu ne ah man xanaa da ngeen may opéré te ngeen maa opéré rek léegi ma mu ko kenn du la opéré ndax kenn du la opéré tey ndax kenn programme wu la wallaahi hmm? lii la ko madame Sène wax kenn programme wu la tey suba suba lañ la programme mu ne ah mu ne waa kon baax na léegi par yàlla kayit bi ñuy jënd pour kayitu BPA la xaw mu ne mu jëkk ñëw mu ko jënd ko bindal na ma ko nee na nga dagg ko subaa moo tax lañ ko lañ ko jënd Modou dem jëndi kayit bi di ko indi teg mu daal di toog toogaat boobu yaa ngi desaan affaire bi gën di métti gënaat di métti battar ñu ko di battar ñu daal di ma woo la madame Cheikh dool ko prévision daal di jàpp prévision xam naa métti bi jàpp mu jàpp koy buddi sànni xam naa métti jàpp na ko daal di sànni léegi sànni bi di prévision man ba mu toogaat ba dal man ko yow edd boobu man ko yow doo nga defal ko sol ko yow ci prévision yi la ma si déedéet edd bi waaw yi mu daal di ñëw fekk daal di ñëw jëlleeg ma taxaw di ko xaar di ko xaar bu mu yàgg mu laa jóg jille ma mu ñëw fekk télévision bi am ni ñu ko defoon nii fekk dafa lii dafa mujjee ko rek dañu ko def waaye da ko mujj yëpp sànni mbaa koy xool mu ma nii ma ko dindee man maa koy defal ah. waaw billaahil azim edd bi ci boppam su ma ko gisee mën naa la wax ni ma kii mun ma du man maa koy defal ci boppam man ko ah doo ko defal mun naa man ko yéen kon yéen man ko waaye yéen kon lu seen liggéey waaw man ko waaye waaw waaw nii man ko waaye yéen loolu mooy seen liggéey du lii mooy seen liggéey yéen ku leen soxla bu leen wax lee defal leen ngeen war koo defal xanaa loolu mooy seen liggéey mu ne man de du man maa defal man kon yéen da ngeen di foof liggéeyu leen mu ne ca tonit man ko ay kon da ngeen di foof yéen liggéeyu leen lii wax naa ko ka daal ca tonit mun ko bu ko tontu man ko du tontu mu daal dugg seen salle de garde daal di tontu defal ñu prévision defal ñu prévision ne bu nekk ak métti tam ak métti tam métti tam bu mu gën a métti gën a takkaar naasi ndeysaan mun ma wool ma madame Sène sa yàlla madame Sène benn ndaw suñu opéré wa mu ñëw di ko def ay prévision mun ko madame Sène mu sigg mun ko waaw mun ko waaw maa ngi mu daal di ñëw maanaam seet bu baa koy waxal loolu ma man sonn naa man mun li may li may sentir ba rek maa ko yëg li may yëg rek maa ko xam man sonn naa de sonn naa trop man mun maa mun toll maa ngi pat maa ngi miir munu maa toog munu maa taxaw wax loolu léegi madame seen madame seen daal bu mu wax loolu dak expliqué mu ma la wax naa la ko pare lu ma ci dellu gannaaw li ma wax naa la ko ba pare naa foofu laay yem laaj dem yoon noonu bu la op suba lañu op est-ce que man suba dina may fekk léegi wax carrément ndaw astu si moom daal di wax loolu mu daal di tëdd mu daal waaye tax bu yàgg daal ma wóor ma Moodu ma woo Moodu jëkkër ji ma woo Moodu Moodu dikk mu daal lan la moo dikk mu dama Moodu sonn naa de man sonn naa li may sentir man métti na sonn naa yëkkati ma Moodu mu daal koy yëkkati mu jàpp ci Moodu mu ne ko xoj xam ne métti bi jàpp war mu jàpp ci jëkkër ji xoj ko xoj ko ndeysaan métti bi jàpp mu jàpp ci Moodu jàpp ci Moodu xoj ko di ko xoj di ko xoj mu yàgg mu gestu daj ci Moodu mu ne ko Moodu mu ne ko ah mu ne ko baal ma ah Moodu mu Moodu mu mu ne ko ah baal ma ah Moodu mu ne ko baal ma ah muy ñetti yoon mu des si daj ci man ni ma mais ama mais la may wax du ma wax yaay mais mais man ko naa ah, mu ma baal ma man ko bàyyi naa dégg mu daal di Modou Mbow la ko daal koy ko noonu muy def noonu daani ko hee eh, asu yaa nit di def nii damay bàyyi damay génne ñi ngay def damay génne sa yaay génne sa jëkkër ma desee maat daal di wax loolu wallaahi azim daal di koy wax loolu mu daal di Modou Mbow tëral Modou Mbow daal di koy tër mu seen sàll li xool ba mu ñu dem seen salle de garde gën toog waaw Modou mu daal di génn ñu dem seen salle de garde daal di toog mu daal di Modou mu tëral mu ko Modou mu tëralee ma ëpp ma damay tàng damaa pat ma jël sama di ko ëpp may ëpp di ëpp mu yàgg ma gis yëngu tootu deful dara ma ne waaw aale mi doon yëngu di bat bat sànq ba yëngatu ma daal di xool gis dara yi neem ma ne ah kii kay dem ma daal di inaaru laa inaa rajo kii kay wax ba daal di daal di pompe sama kanam sax gis-gis daal di pompe sama rongo sama nag mën dañu koo tëj ma daal pat wax ma dara ma daal di woo jël sama téléphone daal di woo Moodu mu woo Moodu Moodu daal di ñëw bi Moodu daal di ko Moodu ma lan ma ko kii kay kay dem na Moodu di ma déedéet moom itam ndeysaan ko tiit daal ma déedéet daal di ko moom itam daal ko xoolee rek dafa toog ci suuf àgg ci suuf daal di toog Moodu daal di toog ma ne ñu nekk noonu ñoom ñoo taxaw ñu ñëw de nekk noonu ba ñu jàpp ko defar ko ba xëcc ko ba di ko defar ba di ko takk ma daal delluwaat di ne wa ma ne yéen kaay leen xool kii ñëw lan la xanaa moom ko dal xanaa man ko man nga xool man ko kii de dem na man ko kii kay la ñuy def prévision suba euh, kii lañ doon def prévision te kii de kenn du ko programme it ñu ne patt ñu mel na mel na ku ñu rus ñu tiit boobu la ñu daal di mot daal di dem seen sàrdakaan boobu la xanaa la ñu bind seen rapport bind seen këyit waaw waaw certificat bi léegi nag ñu ma dangay génn dem toppee ba ñu ma génn daal di koy jël daal di koy muur sama dara nga ne lii dafa ñaaw ñëpp ñoo ko déggandoo lii dafa dafa dafa ñaaw quoi ci dëru Sénégal li ma ci gën a métti nag ñu naan ay mort naturelle lii mort la dëgg la yàlla suñu borom moo ko dogal quoi mais ndog mais loxo sage-femme yi génnuñ ci bàkkee alxuraani karim lii dafa ñaaw dafa ñaaw ci deru Sénégal quoi en plus bala ngaa gën a xam ne jigéen ñi matu li ñu dund nga ànd ceeg kenn muy mot hôpital sage-femme dina leen traité moo bu nekk ay bu ngeen koy def dafa neexoon nag ay genre yoo xam ne yow doo comprendre sax comme si que ñoom ci asamaan si lañ jógee wàcc. Sénégalais yi am na ñoo xam ne déjà nañoo fonk bakkanu doomu aadama nag. ok li yaay asu wax metti na ñoo ko déggandoo li jëkkëru asu aussi wax metti na. trop mais ñu ngi koy ñaan aussi yàlla ko yàlla may xolu muñ deel wax ne leen gars euh, problème bi métti na trop mais am na lu ko gën a métti xam nga li ko gën a métti moom mooy lan ñu fexee régler problème bi mu bañ fee amati mu jam fi parce que li mu fi am bëri trop te cas bi da cee gën a métti ci li liñ gën a ñun xam gën koo ràññee waaw instant bi tey moom vidéo bi damay ñaan ñëpp nañ ko partagé waaw ñëpp jot ci bu ko defee cas bi bañ cee bañ cee am justice def liggéeyam mu bañ a niil fii nag laay bi ñu ngi ci réewum justice parce que dégg naa genre yi heure bu amee dañ koy nëpp nëppal bàyyi ma jàll duñ duñ teg loxo ñi nga xamante ni ñoo ñu def jëf ju ñaaw ji na ko ñëpp partagé justice def liggéeyam ñu jàpp ñu def jëf ju ñaaw jii xam ne lii bañ fee mën a amati justice pour Astou asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ndax li may dund man rek maa ko xam man ak yàlla dañoo dagg sama xol sama xol ci boppam lañu dagg dañoo tas sama yaakaar dagg sama xol te xale bii dañoo tas yaakaaram bi yaakaaram nañ tas de tas nañ yaakaaram àjjana tas àll yaakaaram àllaaxira te man sama xol lañu dagg dagg nañ sama xol bu baax a baax waaye du ma leen ko baal ilaa yawmi diin waaye damaa bëgg nag yoon def liggéeyam te bu ma kenn ñaan intervention